TV mooy télé bi bégal sama askan Sen Ladoum TV mooy télé bi bégal sama askan aywa mbokk yi ñu ngi fii ci box numéro 169 fekk fi nga xamante ne moom mooy euh, Serigne Mbaye Serigne euh, nekk ci bergerie Yaay Soxna Serigne ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay delloo euh, exposition bi rafet na lool. merci beaucoup est-ce que mën nga ñoo présenté jeune mal bu rafet bi nga xamante ne moom nga téye macha allah. macha allah kii mooy Ndonga. Ndonga. Ndonga di doomu Jamil. ok Jamil Samba Laobé Samba Laobé Teranga. macha allah. yaay ji di doomu Muxsin. Mm-hmm. ok kon daal saf na sàpp ci ki nga xamante ne moom mooy magistrat. mu nekk jeune mâle bu rafet boo xamante ni mi ngi ci ban âge. moo ngi ci douze mois. macha allah euh, bi mooy génnam bu njëkk. waaw bii mooy génnam bu njëkk foire. ok kon bi mooy seen première foire. mooy door génn foire. ok moom mooy doog a génn. ok bergerie yaay soxna ñëw indil ñu yan femelle. waaw kii mooy Bousso Bali. Bousso Bali waaw.

papa ji surtout Albouri la ah la. surtout allah mu nekk femelle bu une grande femelle bu rafet moom tamit. macha allah ok euh, doom ji mooy papaam. doom ji kii moo ko taawloo ndongo. ndongo ko taawloo. moom moo ko taawloo allah. macha rafet na trop beneen femelle bi. kii mooy Biige. Biige moom di doom ci Perrine. ok. Perigne di seexandoo Rita di doom si Ndigal. ok Ndigal ku ko wax xam ne doomu Muxsin la. doomu Muxsin. waaw Ndigal champion bu mag bi. bu mag bi waaw ah, moom gàtt fan dong lañ koy jooyal. ndeysaan Ndigal moo daan dugg ci foir nga koy xool muy dugg nekk jeune mâle bu rafetoon ndeysaan ba muy dem alerte di ko gagné c'était c'était autre macha allah mais yàlla guddalul fanam mu bàyyi fi production yu rafet nag yu rafet macha allah macha allah tamit bi mu ngee di jasaaka jaaroon ci yoon boobu waaw tamit gis nga gàtt fan lan koy jooyal rek bàyyi na fi lu mucc ayib aywa liñ fi bàyyi yàlla na barkeel bu baax a baax mu mel ni nag kon yéen seen exposition rafet na neex na euh, mais euh, ku bëggoon a ñëw bergerie euh, yaay soxna mën nga ñu wax adresse bi ak numéro de téléphone bi waa bergerie yaay soxna mu ngi Grand Mbour 1. Mhm. en face CLE bi. Mhm. waa numéro am na ñaari numéro téléphone. waaw jël bii si ginnaaw. waaw 77. 416. 37 33. ok man leen jaar si aussi 78. 363 01 68. ok jërëjëf Serigne. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal. daf fi ñaari exposition tamit parce que beneen si exposition. ci la bokk. waa kii doomu Tim Timon la. kii ah ci doomu UNESCO waaw kii nii doomu UNESCO la waaw waaw yaay doomu mosu kii doomu teraanga la ah? jugal xarit kii doomu rijaal rijaal rijaal di doomu maître Moussa mhm. maître Moussa bâtonnier ok moom nag dañoo boole Biram de ak macha allah bu Papi Dieye. ok jigéen moom lan teg si Rijal mu jur. mu jur ko moom mi. ngi ci ban âge. moom mu ngi ci mois. mi ngi ci huit mois. waaw ah, macha allah jeune mâle ko dugal jeune mâle mais macha allah classé woon na tamit ci dix premiers. ok macha allah macha allah. kii sëtu galactique la. sëtu galactique la ok di doom si Kalidou. ok yaa ji doom Roi Bachir la moom. yaa allah. mu mel ni ñoom ñii ay recrutement ñoo fi ëpp. waa ñii ay recrutement la ñoom ñëpp. bergerie soxna moom nii lay liggéeyee. comme élevage bi lépp su dee xaalis mënuñ koo jënd dangay ngay da ngay bëgg di jaay ay doomu xar di dolli. def mhm. yeneen recrutement. dëgg la doomu maal bëri lan jaay def recrutement bi di renaissance. Mhm. renaissance di doom si Ramadan. waaw moom la ñu jaay ay doomam. def recrutement bi tourné tegaat leen ci maal bi. macha allah toog di xaar ba xam lan mooy ñëw incha allah. yal na yàlla barkeel liy ñëw. merci beaucoup Serigne. amiin ñu ngi lay jaajëfal. na ñu ngi lay jaajëfal. ok di sant yéen tamit waa Ladoum TV. gis mhm. seen taxawaay bu baax si élevage bi. jërëjëf di leen ñaanal ndam rek. merci beaucoup si kanam di ko ñaanal éleveurs yi tamit. jërëjëf jërëjëf mooy télé bi bégal sama askan